Euh, pour euh, li ñuy wax ni li euh, li jëm ci yokkute ci prix heure bi ñuy wax ni tey il faut qu'on comprenne quelque chose d'abord c'est la vérité des prix c'est l'offre et c'est la demande mm-hmm. fi mu teel ni tey c'est vrai que ñu ngi waajal tabaski bi du ñàkk am ñoo xamante ni dañuy def rétention bu Euh, fête yu mel nii bu amee ñi daal di euh, yokk prix loolu du ñàkk man li may mën a wax mooy lu jëm ci li nga wax léegi léegi que l'État doit euh, importer loolu boo ko defee dafay am mujjantal si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di bay mujjantal bi muy am mooy boo comprendrewul lu jëm ci pomme de terre naka lañ koy bayee doo mën a comprendre lu tax ba ñun ñuy wax ni il faut pas importer à l'heure actuelle pourquoi parce que lu jëm ci soble soble bu doy mu ngi fii si marché bi soble mu ngi fii li ñu yore si soble ak li nga xamante ni tàmbali nañu di ko gas ci zone Potou ak Gandiol mën nañu yóbbu au delà de Magal Touba c'est suffisant ministre bi ci boppam moom moo waxoon ni euh, yore nañu fii barki dem euh, stock boo xamante ni ça fait plus de cinquante mille tonnes bu ñu yoree lu ëpp cinquante mille tonnes te ñuy consommer trente mille tonnes par mois tabaski c'est dans moins de deux semaines donc li ñuy yore ëpp na fu sori li nga xamante ni moom la ñu soxla fii ba tabaski n'est-ce bu amee ku def rétention dafay gaañ boppam gëmuma ni euh, commerçant yi ñu ngi def rétention pour tere seen bopp jaay li nga xamante ni mu ngi seen loxo parce que euh, denrée périssable la ak lu mu mënti doon ak fu mu ak nu mu mënti mel ak fu mu mënti jóge denrée périssable la boo yoree pomme de terre bu bëri yoruloo stock yoruloo unité de stockage boo xamante ni mën na la dimbali nga stocké ko dafay yàqu sa loxo donc ñoom amuñu intérêt pour di ko téye noonu bañ ko jaay euh, producteurs yi c'est la même chose euh, d'autant plus que producteurs yi sax ñoo gën a soxla jaay heure bii ñuy wax nii pourquoi parce que Euh, variété yi ñaar y deux variétés ci li ñuy jee bay fii ci Sénégal première variété bi mooy bi ñuy tuddee ngañ bay boobu la ñuy gën a bay euh, ci zone Gandiol ak Potou euh, boobu pratiquement li si des bëreetul ci zone boobu mais dese nañu lu bëri ci boo demee kireel boo demee ndey boo demee Ngomène c'est-à-dire zone bi nga xamante ni moo nekk diggante route des bi ak route nationale li ko jëlee Bayaax jëm euh, nooto si diggante bi dëkk yi nekk si diggante bi am na ñu soble bu doy boo demee Kirène fii am nañu soble bu doy donc levier yi ministère bi war a mën a utiliser pour euh, euh, stabiliser prix yi du nekk importation importation bi dafay yàq lu tax mu yàq heure bi tey boo demee sur le marché mondial le prix kii saaku soble du Sénégal la yokk mais c'est au niveau mondial booy ñun on importe de la Hollande euh, généralement euh, de la France aussi mais heure bi saaku soble ça varie entre mille cinq cent foofu jëm ba quatorze mille quinze mille francs donc loolu boo ko importé effet négatif effet bi nga doon yaakaar contraire am ngay am pourquoi parce que boo ko jëndee foofu treize mille francs wala treize mille cinq cent nga def si frais acheminement fii euh, fret ak yu demee noonu bu génnee d' abord li mu lay dikkee dina jege quinze mille francs le sac alors que li ñuy jaay fii heure bi tey c' est à peu cinq cent ba treize mille ba treize cinq cent loolu lañ koy jaayee heure bi euh, ci fi ñuy waajal tabaski bi donc li may bëgg a wax mooy prix yi ñu koy jaayee fii Sénégal jéggiwul dayoo c' est à dire euh, dépassé wul prix yoo xamante ni moom lañ koy jaayee au niveau international ça c' est une chose l' chose boo ko importé mu dikkee la mille francs le sac fii si Sénégal yow yaay tax ba producteurs nationaux yi ñoom tam ñu yokk seen seen prix. parce que bu dee dañ koy jaayee quinze mille wala seize mille francs le sac euh, nationaux yi ñoom tamit dañu naan ils vont s'aligner au prix pour importation yi. Mm ça c'est un l'autre effet boo xamante ni c'est très mauvais pour les producteurs te ça cause de sérieux problèmes pour les les producteurs nationaux mooy deuxième variété bi nga xamante ni moom la ñu tàmbali. di gas fi mu ne nii boobu mi ñuy tuddee sontar boobu mooy boo xamante ni pratiquement ci nawet bi sax dañ koy dañ koy génnee di ko jaay mais variété la boo xamante ni par c'est par nature c'est pas qualité ni ñuy bayee wala qualité bi baaxul non euh, euh, variété bi moo mel noonu variété la boo xamante ni mën nañ ko bay si nawet premier bi il faut ñu bay ko ci seddaay deuxième bi sorte de variété hybride la mën nañ ko bay si nawet mais bu jógee ci tool bi dafa war a dem directement ci boutique ñu jaay ko bu dul loolu dafa yàqu donc boo boo importer heure bi boo importer heure bi ñooñu du ñu mën a jaay pourquoi parce que yow commerçant nga wala boo jëlee euh, variété bi jógee à l'étranger mën nga ko conserver deux mois trois mois mais variété bi nekk fii sur le marché boo xamante ni fii lañ koy bàyyee c'est c'est bon c'est de la bonne qualité mais mënuñ ko conserver c'est-à-dire euh, sonfa la tudd boo génnee euh, ci tool bi directement dafa war a dem ci marché bi ñu jaay ko donc euh, loolu mënuñu mënuñu permettre ñuy importer donc importation yi de des deux côtés c'est négatif lu bon la pour pour baykat yi lu bon la pour économie bi. <coughs> léegi waaw.